Euh, bi ñu ñëwee gis nañ ci visite bi li tubaab di tuddee commencé jëm ca kanam fa yëf ya commencé ñu commencé fi nga xam ne mooy fi ñu jëlee ndox mi ba fi nga xam ne fi la ñuy defee usine bi nga xam ne boo fa tolloo di nga mën a superviser lépp li nga xam ne moom la circuit ndox mi war a jaar Euh, suñu xel dal ci qualité bi ndax fi mu war a jaar yëpp seggin wi nga xam ne moom lañ koy def def nañ li ci war waaye nag disponibilité ndox am na kañ lay nekk ñu bugg nag vraiment que ñu respecte délai yi ndax dañuy jëm ci période boo xam ne dafa tàng muy mois d'avril jëm kaw bu fekkee ne dama am loo xam ne respecté wuñ ko nit ñi danañu gën a sonn te balaa boobu gis nañ ne continuité bi service bi dafa war a nekk bëgguñu foo xam ne tey jii consommateur bi toog na fa di ñu xool bu bi nam du ko gis wala bu xoolee duñu ko indil ndox à travers des citernes c'est important parce que ñun contrat la ñu am ak ñoom di leen fay kon ñu war ñoo delloo njukkal ci disponibilité bi. monsieur le ministre wax na ci affaire prix ndox mi mooy que seetlu nañ ren ci période chaleur bi ay plainte yu bëri jóge ko ci ay consommateurs ne wax ne prix ndox mi ndax dafa yokk ñu yëgal leen ne prix ndox mi yokkul mais li ngeen di jàmbat. ñëpp a ngi koy jàmbat ma wax loo xam ne nag monsieur le ministre comme yaa ngi fi mooy war nañ xool tarification bi audité ko li tax li am parce que amul benn explication boo xam ne jox nañu ko bi ñëpp waxee ne ndox mi yokku na monsieur le ministre comme yaa ngi fi secteur ndox nekkatul ñaari nit dafa am consommation urbaine bi at consommation rurale bi ay acteurs yu bëri nekk fi te comme ñun dañu am ay contrat bëggoon nañu désormais que bu problème amatee ñu xam kan moo ñu ko andil ba kooku war ñoo mun a ndàmpaay